beneen bi nga xamee ni moom laay jeexalee mooy ruube maan yi ñi nga xamee ni dañuy ruube gis nga alquran dafay nettali lu am solo loo xamee ni kàccoor ya nekkoon jamono yonent bi dañ ko daan def dañ daan wax ni aminu billadi unzila ala alladina amanu wajha nahar wakfuru axirahu laallahum yarjiun maanaam dañ leen daan wax ni su ngeen bëggee jullit ñi jaxasoo su ngeen bëggee tas kuréelu jullit ñi xam ngeen nu ngeen def dangeen ngeen di fexe ba dem ci yonent bi maanaam ci ci bëccëg bi da di fexe dem ci yonent bi ne ko tuub nañ li yàlla wàccee ci yow gëm nañ ko bu ngoon jotee ngeen ne ko yow daal li nga waxoon dara du ci dëgg ndeke da ñu doon nax daal di dem bu ko defee ñi nekkoon ci biir jullit ñi gëmoon yàlla danañ mën a wàññeeku daal di ñun nit gëmatuñ gis nga ruube maan yi de gis nga ruube maan yi ba léegi ñu ngi am na ci biir jullit ñi ñag bi moom lakk nañ ko ba mu baax dara mënu ko bët waaye saay-saay si dañoo fexe ba ñu nekk ci biir ñag bi ñu yàq leen ba ñuy bëtt ñag bi ci biir ñag bi ngir ñoom ñu mën a dugg dañ ci bàyyi xel bu baax a baax ku mel ni Ahmad Khalifa Niass kan mooy wax ni amul xam-xam am na xam-xam waaye nag xam-xam tekkiwul mukk ne yaa ngi def lu baax Serigne Touba dafa wax wax ju am solo nee na ku rag koo xam ne da ngaa am xam-xam waaye ragaloo yàlla boo jeexaloon téere yépp xam-xam boobu ñu lay tuddee newut ci yow ndax xam-xam ragal yàlla la war a def ci nit xam nga fen yu tooy yi mu fi fen moom Ahmad Khalifa Niass fenal Alquran ci bëccëgu ndar kàmmu feñal fenal Serigne Touba ci bëccëgu ndar kàmmu koo xamantis ni kilifa diine nga ci bëccëgu ndar kàmmu damay wax ni kii ku jara moytu la ku jara wattu la daana def musiba gu ne daana wax musiba gu ne waaye musiba gii mu wax fi mu nii dafa jot nañu wax ko ndax ku dem ba am fitu taxaw fenal alquran daal ne alquran bonalut góor jigéen alquran waxul dara ci góor jigéen lu dul nettale ko allahu akbar kii damay wax ni kon warees na ko moytu moytu gi nag moom mooy képp koo xamee ni yaakaaroon nga ni kii kilifa diina la yaakaaroon nga ni borom xam-xam buy defar la nga daal di soppi sa xalaat ci moom xam ni kii kuy yàq la waxuñ ne dañ koy moytu di ko daw de déedéet dañuy jàkkaarloog moom ci wax xamal ko ni li nga wax du dëgg alquran dafa wax ni góor jigéen baaxut alquran dafa wax ni góor jigéen ku koy def dañ laa war a rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax kon yow mi nga xam ni yaa taxaw fenal alquran fenal yonent bi sallallahu alayhi wa yow kay garaat ga nga xamee ni moom nga amoon muy ñu la daan xool di jàppee ne yow kilifa diine nga ak ya ca aju loolu na naka tey tekki nañ ko jàppee la noonu alquran ba ba ngay dellu gannaaw di tuub loolu na leer fi mu toll réew mi dañoo toll foo xam ne gis na ñoom ànd sàmm jikko yi lii ñu def lu am solo la parce que fi mu toll leeral na carte gi kenn ku ci ne fa mu féete fi mu xam nañ ko ba tey am na loo xamee ni nag dana ñëwaat mu gën a leer dana ñëwaat mu gën a leer am na ñu làqatu ci ruq bi ñoo xamee ni ay taalibe seytaane lañ am na ñu làqatu ci ruq bi ñoo xamee ni ay bàjjanu góor jigéen lañ danañ génn ñi ngi ñëw waaye na ngeen xam ni yéen bàjjanu góor jigéen ñi na ngeen xam ni yéen ñi nga xamee ni yéen ay jàppale góor jigéen ak fu ngeen man di ne bu ngeen ñëwee fii ngeen ñuy fekk ñun dawuñu yota fit wi ngeen am ba sañ a ak mbon fit wu ko raw lañu am ba sañ a ak mbaax ne dana sax ci réew mi loolu na ngeen ko xam te gis nga ñi nga xamee ni ñooy suñuy kilifa diine ñooy suñuy boroom xam-xam segam président ya nekk ca bitim réew ñoo am fitu jàkkaarloog Macky Sall suñu président ne ko ndax doo légaliser góor jigéen ñun nañuy am fitu jàkkaarloog Macky Sall ne ko ngóor jigéen fii boo ko fi légaliser danañ jàmmarloo ak yow carte gi faw mu leer kenn ku ci ne xam bi ay tarafin takkuwoon fi ay soffin takkuwoon faaw carte gi leer amma nekk fii di puluf loolu fi mu toll war naa mën a jeex kenn ku ci ne na xam ni fi mu ne dañoo war a jatu ne soccat combat bi tàmbalee tey waaye lépp nag ci jàmm lépp ci fair play ndax ñun ñëpp ñoo bokk réew mi te muñun fee dogal dara loo xamante ni neexuñu ñun askan wi kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax tey wax ne combat bi fii la tàmbalee waaye du fi yem naka jekk nag bu ñu découragé yéen laay wax yéen askan wi bu leen découragé waaye lan mooy li ñu war ñun lan mooy li ñu war mooy ñu taxaw jàmmarloo ak mbon gi loolu dong mooy mooy li ñu war ñu jàmmaarloo moom ba yàlla sunu boroom di ñu moom ba pare it def ci sunu njaboot xamal leen bu baax a baax ne leen góor jigéen warta dund fii ci Sénégal ñoom may ñu di ko légaliser sunu ndaw ak sunuy doom suñuy sët màggaale combat bi ñu bañ mukk góor jigéen di dagan fii ci Sénégal loolu na leer te sa su ngeen dellu see nag ci ay combat ñun ñu dellu si du ñu nopp mukk di ci wax insha allahu taala ñi ngi jéggalu bu baax a baax wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullah